ngeen defal. waaw waaw léegi c'est pas c'est pas pourquoi léegi yéen boolewu leen seen ngeen bëgg nit ñi boole suñu doole. c'est légitime quoi c'est def euh, ko def nangu leen. on est dans une pas d'accord parce que tey hmm. bu fekkee tey daf ne. candidat yu jóge ci ñun bu ñu demee deuxième tour dañuy dellu soit ci ñun. dama ne à 90 pour cent. ah pour cent. kooku daanaka sotti ceeg def ci la tey bu ñu toogoon ci ci suñu biir aussi tamit bu ñu demee élection seeni électeurs dañuy voté bokkul ak yéen yi nga xam ne yéen nekk opposant yi nga xam ne tey jàpp ngeen ni da ngeen bëgg a jugee da ngeen fee bëgg a jël régime président Macky Sall te juboo woo leen ci seen biir xam nga tey jii nii la yeewi askan wi naa ko wax man jaakaar naa su yu bëri bu ñu ko révisité li xew tey nii yëpp waxoon naa ko mus ngaa gis kàngam yi kàngam yi kàngam yi nekk yi nekkoon biir yeewi askan wi Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany xalifa Sall ak ñan. Bougane tamit daa bëri est-ce que mus ngeen leen di gis ñoom non xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw. non damay préciser Bougane bokkul woon. waaw d'accord waaw même bu ci bokkul woon tey actuellement par rapport aux élections présidentielles yi ñu jëm ñi ñu mën a tuddee les ténors de l'opposition est-ce que gis ngeen ces figures de l'opposition là ñoom ñu toog ne ñun ñëpp déggoo nañ voilà. kii la ñuy tànn mu nekk. mais seen i charte ah, seen i charte ko ci woon aussi. non non non waxuma xaaral ma ñëw mais comme comme li doyen wax léegi pour a am doole. Birama xaaral ma ñëw Birama xaaral ma ñëw mooy Birama xaaral ma ñëw. jafe c'est pas un problème de. c'est ah coalition tuuti. c'est pas un problème PDS ah, une coalition de l'opposition. c'est pas ay mbër xoolal li ma lay wax c'est beaucoup plus profond. Yewwi dafa am aar dafa am. mais wallu dafa am yooyu ay opposition gis nga li ma lay wax li ma lay wax li ma lay wax c'est des coalitions de l'opposition wax la gis nga li ma lay wax kenn amut gis nga li ma lay wax li ma lay wax Birama Birama mais déglu tuuti gis nga li ma lay wax c'est beaucoup le mal li ma lay wax la mal est beaucoup plus profond chez tey jii nii boo gisee li tax ma wax loolu loolu noonu nañ déglu tuuti gay l'original xam nga yàgg yow yàgg nañoo bokk ay avant première du dualité. xoolal non non non man moom bokkul yàgg nañu ko wax yow comme Birama ngay def xoolal Ousseynou. vas-y le mal est beaucoup plus profond sànq maa ngi la koy wax au niveau de l'opposition kenn yéen a wuti sa morom mu nekk président c'est ça la réalité. Hmm. tey lan moo waral éclatement Yewwi après mais demal Thiès maire bu Thiès. le maire non Thiès moom dañ ci xaaral ma ñëw le maire de Thiès. débat bi moom di ma may cinq non cinq minutes dañ ci wax Thiès. xoolal le maire le maire de Thiès ak ñoom àndaloon ca Yewwi dem lañ taxaw ne ko sàcc nga da ngaa sàcc 11 millions sàcc nga 17 millions. sama maire na bureau municipal ba. le maire de Thiès Ouest. te c'est dirigé par le pur. jiite la jiite ah, mais dama la bëgg a wax ne la fragmentation bi nekk. non non pas Birame Souleye dama la dama la mais mais avant. respecter non non non la parité a été utilisée comme prétexte. loolu nag du baax non man fa laa dëkk man am naa fa deux conseillers moi ah. j'étais candidat à la de Thiès Ouest am naa fa deux conseillers. li ñuy dund xam nañ ko dama ne la parité a été utilisée comme prétexte tey jii nii même déggoo bu ñuy defar bi ñu créaté seen bureau municipal ñu ne même bu ñu atte atteindre ñu quorum tey waa teg na équipe municipale bu bees ñamu àndaloon ci biir yeewu yëpp sànni na leen fële pourquoi la fragmentation au niveau de l'opposition le bureau municipal de Thiès Nord a été <coughs> reconstruit d'accord par le préfet parce que d'accord ñu woon parce qu'il y avait pas le respect de la parité Thiès Ouest c'est le même scénario. d'accord xam na bëggal ma la la parité mais malgré ça la parité a été utilisée comme prétexte parce que les dessous ya nekkoon ci suuf dessous ya nekkoon ci suuf dessous politique yi réalité bi ñun acteurs politiques yu koy dund ñun ñoo ko xam te loolu moo feeñ ba ci seeni leader à au haut sommet tey doo leen mës dégg tey ji te na je vais vous je vais vous donner un gis nga fii laa la ko waxee bindal te teg si vous n'allez vous allez en ordre dispersé aux élections yéen a ngi doon wax naan élection yi 10 heures. 8 heures midi. 10 heures benn bokk yaakaar doo leen benn doyen c'est le pouvoir qui donne des conseils à l'opposition non non xam nga li tax xam nga li tax c'est un peu paradoxal ah pouvoir bi pouvoir bi moo leen di wax boo leen bëggee gagné fête ça ah non bokkul woon ci yeewu ah. ah, euh, mais tey actuellement yeewee ak ñoom ñëpp tous ces membres de l'opposition dañoo bëgg a dajaloo dajaloo leen doon leen benn non posture du benn posture du benn non non non posture du benn nee na la tey opposition significative yëpp ñu ngi boole seen doole pour dem autour d'un candidat et loolu mooy danger bi Macky Sall. mais c'est ça votre problème vous ne pouvez pas le réussir. waaye yéen yow yow yaa ñuy tax lu ñu mën a réussir déglu ubbil sa nopp rek nga. dama yow eh, Guèye yàkkamti Guèye sama xarit bii Guèye tamit. non bul yàkkamti yéen collectif bi rek collectif bi rek ñooy dem nii xam nga mu ngi liir euh, collectif bi. mais lu mu liir nag kii kat xaw ma ko kii ñan ñooy dem collectif bi. peu importe. non ah leen. dënk waaw léegi ñoom bu dee ñoom bu dee ñoom dañoo xeeb waa collectif bi. ñi ñi nga xam ne aussi kon lan moo tax ngeen nangu signé ak ak ñoom wax naa ko depuis collectif bi bokkuñu amul convention bokkuñu ni ñuy wote te xaw ma lu sax ñu ànd. wax nga leen ko non dañu am principe. dama ne dama lay joxaat beneen information nga bind ko incha allah. lépp dina lay joxaat beneen information nga bind ko ñoom ñi actuellement ñi jàppee seen bopp kàngamu opposition bi démarqué wu ne du ñu dem palais Ousmane Sonko ak le Pastef faalewu leen ne compte même pas. sur eux pour gagner les élections non loolu yow jaxasuma leen la wax waa eh, on peut parler on peut faire une parenthèse. ah da ngeen musoo toog musoo leen toog. yéen musoo leen toog a musoo leen toog. musoo leen toog. Ah, bu ñuy toog dañ lay tàggu. Eh. il ne vous il ne compte pas sur vous. bu dee bugaan moom bugaan moom nëbbul dara man gis bugaan suba dama ne dama ne euh, euh, kii. nu ñu koy tuddee eh, ànd fi woon ak Idrissa Seck. Idrissa loolu mooy comme lii mooy comme lii cest à booy ànd bu la éliminer ngeen def seen kuréel di ànd da ngeen di ànd koo xam ne am nañ yaakaar ne mën na changer la tendance. on perd pas notre temps aujourd'hui wax na ko. l'opposition significative est en train de travailler pour être autour d'un seul candidat. pour que neuf déglu rek. di sa noppee di nga dégg. mais dama ne lan moo ko tas ce qui sa bopp. du ñu ànd ak pouvoir. lan moo tas. yooyu lan moo ko tas. convention moo leen tas. convention tasu ko parce que Ousmane Sonko leur a montré que. xam nga yéen la bëgg wax ne la tey nii. la fragmentation de l'opposition toll na fa nga xam ne ñoom mënuñoo jubóo ci seen biir. lu ma ciy wax dama koy damay modéré sama langage ci Bougane <laughs> na dem bañ biraama dem kër ga sama yaay ne ma doo fi